Euh, yëg-yëg biñ ci am rek moom mooy euh, sant yàlla parce que dañ alhamdulilah ala kulli haal quelle soit la situation sant rek nga ci war a teg waaye lii mu xewle kenn yéenewu ko ndaxte soppe dafa nekk koo xam ni euh, dafay taxaw nit dafay jàppale nit waaye ki mu ñàkk tey di am dafa nekk koo xam ne même bu dul soppe sax moom dafa am relation bu am solo bu mu am ak ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey soppe ci mbaaxam ci yaatoom ci yiwoom te ku bëgg soppe daf lay bëgg yàlla xam na ko dañuy ñëw kër ga mu nekk yaay njaboot di toog di jox nit ñi di reetaan di kaf am yéene lool nag ci ñun ñëpp ndax xajoon na fi ñuy ñaan yàlla yàlla xare ko ajana di koo xam ne daal euh, buñ doon wax ci moom fi la ñuy fanaan di jéegi ba dañuy ñaan rek yàlla xare ko àjjana gën a kawe ndax xam ne ni julit la xool bi rafet na daana joxe ñam daana kaf ak ñun daan reew ak ñun te ku fonkoon directeur Ibrahima Mbaye soppe la waaw. yan waa di parce que xam nga ñàkk sa soxna dafa métti mais xolu muñ ndaxte nit bu la yàlla may xolu muñ rek parce que soxna moom kenn du ko fàtte te la lay métti ci moom it ci ñàkk gi xëy na du ma sa deñ waaye yàlla daf lay may xolu muñ rek nga mën koo muñ kon dañu koy ñaanal yàlla may ko xolu muñ ah defal ko ay xéwal defal ko sutura defal ko ndam ndaxte moom bu ko yàlla fayee xolam lu ne mën na ko am ndax ko baax la ku mën a sonn ci nit la ku mën a taxaw nit la moo tax gis nga bisam bi ne mu mel parce que nit moom mën nga àbb ay sées mën nga àbb lépp waaye boo xewlee am tiis ñëpp bàyyi liñ doon def ñëpp def déplacement ñëw sa mbaax ak sa taxawaay bu rafet ci nit ñi rek la la yàlla di delloo waaw. mais ñu ngi santaat bu baax a baax yéen di leen jaajëfal jërë ngeen jëf merci beaucoup. rafet ji ko ñu ñëw fekk la ci dëj bi muy naqar ak tiis seen mbokk Ibrahima may soppee ñàkk euh, soxnaam tey euh, ban yëg-yëg nga am euh, ci bile xibaar bi. waaw métti comme ni mu méttee ci ñëpp rek ndax nag boo amee sa nit mu ñàkk. day doon ci yow métit bu méttee métti rawatina ki nga ñàq nekk sa nit man dama jëlale soppe mais jéegi ba rek xaritu ñëpp la voilà képp ku soppe am rek xaritam nga yàlla xam na ko mu nekk ku mu bëgg saan ko nga xamante ni man ak moom on a toujours parlé au téléphone kon bu nu ko ñàqee metti na ndax maa ngi statut fan ni yëpp di wax ne dinaa namm say vocal te c'est vrai ni noonu la demee ndax tout le temps mu ngi lay vocal mu ngi def nangam ak nangam mais nag euh, bu yàlla soxlaa rek jaam ñàkk waaw foofu rek lañ ko teg segam dee la yàlla njëkk a bind ko dund moom lu ñëw rek ñu muñ ko li may waxaat mooy soppe yal na yàlla may ko xolum muñ ndax nag soxna dafa jege lool borom këram kon bu ko ñàqee rek ñàq na lu mette méttee métti mais yàlla yàlla dooli ko xolum muñ mu bàyyi bàyyiwaat xel ne ñàq na sunu sang bu tedd bi di sayduna muhammad sallallahu alayhi wa kon keneen koo mën a ñàq war koo mën a muñ loolu rek a tax mu oyof ci ñun lool voilà te moom it noonu la ko xamee te yaayam wax na ko koo barki démb nee na ko boo seetloo heure bi daaw dangaa tant fii ci mbégte di festival say naw la yëpp seet si la kon ren boo tantaatee mu nekk nakar xamal ni sunu borom mi la tegoon bànneex daaw wala teg nakar kon looloo ak cant la yàlla yàlla dolli ko xolu muñ rek la ñuy ñaan incha allah moomit mu nekk nit ku baax Ibrahima Mbaye Sopé waaw mën a fanaanal nit ku nekk ku nekk xale mën nga ko yendal fii nii mu nekk nit ku baax démb rek Euh, am na benn xaritam bu ma wax wax bu tiris moom soppe euh, mu ne mu ne dafa ànd ak Ibrahima mbay soppe bi ñu gënee nekk xale bi ñu gën a nekk jeune quoi pas xale mais bi ñu gënee nekk jeune ñu dem banque nee na mu retiré ci banque bi xaalis bu bari def ci sa def ko ci saak nee na ñu dem ba vers deux heures du matin mu ñëw woo xale bu jigéen bi téléphone xale bu jigéen bi ni waaw soppe sama téléphone heure bii ba jàmm la mu wuyu ko ni ko lu xew mu ne ko wàccal sa kër ci suuf mu ne ko wax ma lu xew balaa ma wàcc mu ne ko wàccal rek mu wàcc nee na mu ne ko abal ma 20 mille francs loolu veyu tabaski la woon nee na mu ne ko 20 000 ndax la yow li nga li nga recevoir ci xaalis tey jii li nga jël ci banque bi après ngay laaj 20 mille francs mu ne ko jaam yi ma yaakaaroon ruus naa tas seen yaakaar moo tax kon ça veut dire que li mu retiré ci banque bi yëpp da koy jox jaamu yàlla yi te c'est que ni noonu la mel soppe lu mu ñàkk rek barki Seydunaa Muhammad nit ñee ko ko xañ te li muy def defu ko ci jàmbur yi kese de daf ci biiri këram la ko njëkkee ndax boo demee ci ay mboqam ba tàllal leen micro bii nga ma jox ngay xam ni nit ku baax ay Ibrahima Mbaye Sopé lii nekk ci xar kanamam barke yonent bi moo nekk ci xol bi yal na yàlla lafal ko cat gën ko fee yàggal ci dara darajey Seydunaa Muhammad njaboot gi mu am ak jéegi yal na yàlla yàggal leen fi ñoom tam te may leen xolu muñ incha allah yàlla bàyyi fi sunu yaay ji man li may wax ni ko moo tax ma bëgg la mooy sa yaay ndax man ku fonkul sa ndey man duma la bëgg man ku ma bëgg sa yaay tax ma bëgg la fonk gu mu fonk ndeyam a tax ma bëgg ko nag ki fi jógee di jéegi yal na yàlla may ko aljana si yal na yàlla yéegal ko ci barzaqu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko te yàlla na ko def ci barke alxuraan. Aïcha sëñ bi tur bi ak euh, naka nga sant ak ci lan ngay yëngu loo bokk ak sopp waaw man maa ngi tudd Ibou Fall di artiste comédien dëkk fële ci Géejawaay nekkoon euh, président Arcot bu Géejawaay. mais actuellement nekkatuma ko Ibrahima mbay nag yàlla dafa woon ñu bokk milieu théâtre bi euh, xam naa ko bu baax xam naa ci moom lu bari mais problème bi mooy soxnaam jot ñu woon miinante trop trop parce que su ñu gisee bariwul su ma waxee damay wax que ne ñaari yoon laa ko mës a gis waaye ñaari yoon yooyu def na ci man marque boo xamante ni vraiment wane na ni jigéen ju baax la comme Mamor ni mu ko seede léegi parce que ñoom ñoo dëkk ñoo nekk. keroog bi ñu fay dem defe naa kii la waajuram wàññeeku woon ñu nekkoon ci décès bi moom mu woote ne na ñëw kër ga añ ñu ànd def délégation ak ñoom Leyti Fall ak ñoom Pafal ñëpp dem këram bi ñu waxtaanee nag laa ko xool xam ne jigéen ju baax la ma koy ñaanal fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jël euh, Ibrahima Mbaye comme ni nga ko waxee rek Ibrahima Mbaye soppee Ibrahima Mbaye Sénégal la Ibrahima képp koo xamante ni yaa ngi ci monde culturel bi actuellement nii xam nga Ibrahima Mbaye Euh, defe naa te ngeen xaw a retard tuuti ci ñëw bi samay bu ngeen woon ci heure denc bi euh, y avait moom monde ñi fi daje ñëpp ci doomu aadama kenn xamul nu mu toll koñ bi yëpp ba fële la nit ñi toogi woon euh, loolu nag moom moo ko liggéey doon ñuy ñaan yàlla kii dem na yàllaa ko indi woon moo ko soxla moo ko jëlaat yàlla na ko yàlla may keneen tamit koo xamante ni dina ko mën a uuf uufal ko njabootam ci barke Seydina Mouhamed ka dem yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko ci àjjana firdawsi comme ni ñu ko waxee yéen aussi waa Dakar Buzz a chaque fois dinañ leen gis ngeen nekk ci milieu artistes yi rawatina comédiens yi ñu leen di ñaanal aussi lii ngeen di def yal na leen yàlla may wér ak tal ak fekkee ba mu doon ay télévision raw TFM seen TV télé bu fi mënti nekk yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def seen buzz incha allah rab jërë ngeen jëf merci beaucoup. Euh, maa ngi tudd Mamour Thioune di artiste comédien. di wëlëre samit ci Ibrahima Mbaye Sopé ñu ñëw fekk la fii ci euh, xibaar bu tiis bi muy génn àdduna soxnaam jéegi ba soxna jéegi ba ñëw jaale si ko yan kàddu nga mën a yëkkati euh, sëñ maam ci ci kan ci euh, ki nga xamante ne mooy soxna si ba xamoon nga ko wala jege woon nga ko soxna waa xamoon naa ko quand parce que Ibrahima du aar rek moo ñu boole c'est un frère pour man donc ñu cheminer ensemble pendant très longtemps ba ni ko yàlla boole ak euh, soxnaam si di jéegi baax jóge fi tey wax dëgg yàlla kàddu yu mën a seede ci moom mooy dana xaw a difficile tey ku ma defaloon euh, ku ni woon naa bind ci moom livre damay sonn parce que nit koo xamante ni la nga xamoon ci moom premier jour ba moom nga xam ci moom deuxième moom nga xam ci troisième moom nga xam ci moom ci quatrième ba da ngay am problème pour mën a bind sax ci moom livre ngir lan euh, jigéen ji dal la woon du li fi jógee moo tax ma koy wax li ma xam ci moom rek laay wax tey jiitu ji nañ te yàgg-yàgg dañ koy fekk mais ku baax ku bëggoon tamit borom këram bëggoon xarit yi borom këram bëggoon ay mbokki borom këram aussi. parce que ku ne xam na ni milieu culturel dafa nekk milieu bu xaw a complexe quand tu n'as pas une femme compréhensive ku ci mel ni jéegi ba da ngay daal di am problème lan moo waraloon soppe su génnee xelam dal lu programme guddee guddee guddee mu mën fa nekk c'est parce qu'elle avait il avait derrière lui une femme forte compréhensive bu ko doon gunge bu ko doon accompagner vraiment ba tax na xelam dal loolu daal nekk na seede yu ma mën a seede ci Diégui Ba mu nekk koo xamante ni vraiment waaw ku baax la woon. wax dëgg yàlla soppe ñàkk na soxna day ñaan nag yàlla parce que yàlla jeexalul dara dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ku ko gën donte ni ku ko gën dana jafe dana dana naqaree gis mais suñu borom am na lépp dañ koy ñaan daal ñu ngi la koy jaalewaat bu baax ci sama kàddu sëñ Maam waaw yéen waa Dakar Buzz yëpp aussi maa ngi leen koy jàlle parce que acte bi ngeen def nii wane na ni vraiment yéen a ngi suivre de très près les artistes yéen a ngi suivre aussi actualité parce que lii en fait dalul soppe rek dafa dal tout le Sénégal quand je dis tout le Sénégal parce que la culture est tout un pays waaw dafa large euh, euh, large gi mu large dafa dépasser frontières yi parce que soppe n'est plus un comédien sénégalais tout court, mais c'est quelqu'un qui a représenté le Sénégal dans pas mal de festivals, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Donc quelqu'un comme ça su ñàkkee lu ko jege lu sës ci moom dafa nekk perte boo xamante ni dafay dépasser frontières yi parce que ku ne xam na ni relation bi am entre mari et femme rawatina ngeen am ay bant yu yàlla rotal seen diggante rawatina aussi yàlla moome ko ci réew moo xamante ni réewu jàmbur la daan doole moo ko fa yóbbu ñu toog pendant une semaine pour mën a jot ci corps bi ku ne xam ne ne attente boobu dafa diis métti na mais nag am nañ ci moom yaakaar parce que témoignage yu ñu am ci moom ak ñu ko teewee ci biñ koy yóbbu tey yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel daal loolu lañ ko ñaanal yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel vraiment ñu ngi leen di remercier waa Dakar Buzz di rafetlu bu baax baax seen teewaay merci beaucoup. Euh, soxna si jéegi euh, ki génn àdduna muy soxna jéegi ba euh, di soxna Ibrahima Mbaye Soppe sama nijaay. Euh, dafa nekk koo xamante ne ni sama xarit la woon moom jéegi nekk sama sama complice nekk sama confident euh, mësul def dara te woowu ma waxtaan si ak man même lu mu bëgg a def ci kër gi wala lu muy programme daf koy woo daf may woo ba ma ñëw mu waxtaan si ak man ma wax ko ni ko defee ko nii wala defee ko nangam dara dara dara mësuma nëbb daraam daraam ba ni mu fa jógee bi nga xamante ne nii euh, mi ngi nekk si wàccaay woo na ma téléphone ñu waxtaan vocal na ma mel ni dama doon tàggu dama xamal ne ma nouvelle bi ma dégg te ngéej neexu ma mais nag bu yàlla soxlaa jaam ñàkk comme si que daf ma doon daf ma doon tàggu di ma nag xam naa ne suba doo liggéey moo tax bi ma xëyee nouvelle bi ñëw liggéeyu ma ma xalaat vocal li ma waxoon dama ni kii daf ma doon daf ma doon tàggu d'une manière indirect mais mu nekkoon ku baax ku xamante ne ni ku teey du yuuxu doo pour nga dégg baatam sax problème la dafa ragal jéggi ba bëggul ku ko mere ndax xamul xamul moom xamul problème nekk koo xamante ne ni ku yaatuloo ko ku yërmaande nekk nekkoon nag un di boole euh, famille bi di wax soppe dafa Omar kat sa jarbaat bi defal ko nangam defal nangam defaral nangam sa sœur yi defaral sa sœur da daan jékki-jékki sax dajal ay yëre soppe yu bari jël ko ñëw jox ma ko ne ma ni ko ni ko ko yi yii nii jërëtu la jox ko Omar donc loolu lépp da ko da ko doon def ndax ni ma meloon ak moom ngir aussi di ngir ngir ngir fédéré vraiment nit ku baax la perte bu rëy la pour pour famille bi. feebar bi yàggoon na ci. donc feebar bi mën na ni yàggul yàgg na yàggul mais nag euh, nit ku nekk moom feebar bi la nara a yóbbu moom bu ñëwee rek maanaam liñ naan feebaru dee du wér loolu loolu loolu moo ci nekk. Mhm, mhm. Euh, mu mel ne demam bi bett na leen bettu leen euh, waaye euh, ñu koy ñaanal rek ci sama kàddu ni ma koy waxee di ko ñaan yàlla suñu borom bi xare ko àjjanay si te teg loxo ci njabootam gi ak bépp way dawlu yan kàddu yu mujj Omar ngay def ci soxna jéegi ci témoignage am yow ngay jarbaatu sob ma comme ni ma ko waxee rek di santaat yàlla bu baax di nangu dogal bi nga xamante ni suñu borom moo ko moo ko teg suñu kaw Euh, ndax yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk koo xamante ne bu la ko yàlla di jox du la tàggu bu ko soxlaatee bu koy jël du la tàggu kon bu ñu def lu dul nangu dogal bi euh, tey ñaan jéegi mi nga xamante ni moo fi jóge yàlla na ko yàlla xaaral ci àjjana yi gën a kawe fa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jógee njaboot bi mu fi bàyyi ñu koy ñaanal borom bi teg ci loxo bu baax a baax a baax di ko ñaanal aussi mu mottali ja ndawam àjjana bu baax a baax a baax bon fi may Euh, gërëm ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy mbokki artistes yëpp ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo bokk ak soppe di liggéey euh, parce que bi affaire bi amee ba tey chaque jour ko jëfee artistes yi ñu ngi fi matin midi soir ngir rek bañ soppe wéet bàyyiwuñu ko benn yoon mu wéet ñun ñi nga xamante ne ñooy ay mbokkam sax jotewuñu si woon ci moom ndax ay xaritam dar nañ ko taxawu nañ ko jàppale nañ ko bokk nañu ak moom tiis bi añ nañ seen alal Euh, andi nañ seen doole andi nañ seen xel andi seen xalaat dëmb bi ñuy jëlee ji koor bi ñu nga boo demee foofu da ngay yaakaar ne sax ministre moo fay ñëw wala dara parce que noonu la ñëpp rangalee seen i oto seeni i 4 di xaar soxna si di bokk Ibrahima li nga xamante ne nii moom mooy moom mooy moom mooy naxar bi kon donc Ibrahima xaw ma lan la leen lebaloon waaye jàpp naa ni ñoom ñoom fay nañ ko di ko wax rek moom mu gën a góorlu lépp lu ñu doon def ci lu baax mu dolli ko waa bi affaire bi amee ba tey bis bu ñu xëyee wàcc nañ seeni lal jox ñu génn nañ seeni néeg jox ñu ñu ngi ci togg yi ñu ngi ci lépp ñoom itam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan euh, yàlla na yàlla fayal ñu leen barke boroom Touba. jërëjëf jërëjëf. Sabel Diouf. di gorom di yaayam ñu koy ñaanal rek mu sëy si nag ci koñ bi fekk ñu fii ñu dëkk ak gorom boo joxee teraanga daf ñu jox teraanga su ma ko fekkee marché danaan mère Sabel ma ne ko naam mu ne ma am ma ne ko marché bi jéegi dafa dafa dafa kii mu ne ma jëlal rek ñii mu dëkkal fee mu taxu nii ñu ngi nii ñoom ñëpp toog léegi lañ yegg si bokkoon nag fu mu sëy si mu sëy daf fee def lu baax ba dee toxu dem fële di def lu baax waa koñ baa ngi nii fa mu taxu yàgg fa yàq fa de waaye ñëpp ñëw na ñu ngi nii. man genre nit la woon jéy. baax rek laa biir rek bëgg ñëpp bëgg xale bëgg ndaw bëgg goroom bëgg ay njëkkeem bëgg jëkkëram rek bëgg goroom bëgg njëkkeem doomam yi bu ñu fi indi boobu tuuti lañu waaye day ñëw jëkkër sama doom xaritam la day defar bopp waaye xaritam la. ba bu muy dem ba bu muy dem ma nga toog ci buntu ki toogoon fii léegi ma nga toog ci buntu di waxtaan ak ñun ma ne ko jéegi yaa ngi dem na anam boobu ma nga ma jox mu ne su ma di soog barke yonent bi lii la ñu tàggoo mu toog fu ñuy waxtaan ba mu dem naqar daal la ñu nekke ñun daal naqar la ñu nekk ci jéegi naqar rek naqar bu ñu fii rek. ñu ngi leen koy jaale bu baax sama kat. jaale ko ay magam jaale ko jëkkëram jaale ko goroom ndax lu baax la def ci pañ bi. ok si tur bi. man Maguette Seck lañ may wax. gée ah géeji sama rakk la sama xarit la magam laa doon àndal moo jur xale yi magam dénkoon ma ko nag. mu baaxoon ci magam mu nekkee Canada booba dara jot ko lu mu liggéey magam la ko jox nekk magam magam daf ma daan wax naa bés bu ma dee bàyyi géeje xale yi dina ma leen téye yàlla def magam gaañ mu uuf xale yi nekk xale yi nekk xale yi ba daw ba fi xale yi man bu ñu waxee man géeje dafa daw ba daw na ba waa faat ba daw na bàyyi ay doomam géeji nag am na yar am na teggin bëgg na soppe yiir na ko suturaal na ko wax dëgg yàlla man talaata rek laay wax ak moom Canada ma ne fii ñuy waxtaan lu bare baree bare man ko géej gi man dama dégg da a feebar mu ne ma taan maa gisee dara jotu ma nit ñi dañuy wax rek waaye taan maa gisee mu naa mu ne ma Aysatu ma doom dafa baax ñu ngi may jàppale ñu ngi ñëw ci man ñu ngi may yërëm lu ne mu wax ko man ko ah mu laa ñuy waxtaan lu bare ba ci yàgg mu daal dama taan Maguette Seck sa numéro am na wéef man ko ah mu ne ma dinaa la wéef fan yii dama lay wéef ndeke boobu mu ngi ci lalu hôpital yi tëdd léegi nag ma toog talaata àllarba alxamis àjjuma samedi ma woo sama doom bu jigéen bi ne ko yow kaay wool ma géej ndax ne woon na daf may wéef te gisuma ko ndeke ki woon nañ ko ni ko géej ji dee na mu dima ko nëbb léegi ndax booba dama feebar sama tension yéeg ma daal di toogaat ba dimanche man ko yow ñaañu maa ngi lay wax kaay wóol ma géeji kaay wóol ma géeji rek ngay taxawaaloo ko tambaabalu te xam naa géej gi daf may fontoo mu daan ma waaye yaay xaar ma ma ñëw dañ ma woo ndekk boobu moom lépp mi may daw ba lundi lañ ma wax dëj bi ma ko yow ñaaña sañ nga maa nëbb géej gi dee na ba heure bi waaye géej gi daal ndax nañu ba dee xale la nag mais xale bu am sutura la xale bu bëgg goroom xale bu bëgg jëkkëram xale bu ñangoo ñafe xale boo xam ne da doon takk euh, ndiggam rek di ñafe pour suturaal jëkkëram ak yiir jëkkëram kon nag yàlla na ko yàlla xale àjjana yàlla na yeewoo firdaw barke yente yàlla na bokk ca njoowaanu Muhammad jërëjëf loolu rek laa ci doon wax ban euh, façon xale la nekkoon jéegi ak ci ñaari euh, ñaata at la toll avant muy génn àdduna amoon na juróom fukki at ak ñaar waaw ah, bi muy xale ci magam la nekkoon maag moo ma nekkandoo woon mais xamaluma ko daal moom nag ñii théâtre yëpp ay nitam la ñu mës doon ay xaritam la ñu mës doon wax dëgg yàlla xamaluma ko dara lu dul mu nekk xale nekk ci magam yor ay doomi magam rek la kër gu mag la woon mais kenn mësu dégg géej soo ko rek day ree ree rek lay def su ma waxee mu ne waaye taan màgget sekk bàyyi ma waay kii doomam la. bàyyi na fi ay tuut tànk kon. kii doomam la moo ko indi moo ko jëlee Canada indi ko benn doom bu góor la boo xam ne ma amul sax fukki at moom la yóbbu woon après mu yónnee ko indi ko waaw macha allah waaw. feebar bi dafa yàggoon ci moom. waaw xam naa ñaari at daal la faju ji woon nag yàlla moo soxla yàlla bu soxlaa ku mu soxla nga ñàkk. ñu ngi leen koy jaal bu baax di ñaan yàlla suñu borom teg loxo ci njaboot jëf amin yàlla amin yàlla na yàlla dégg yàlla na ngi leen di gërëm di leen sant wax dëgg yàlla bokke eh, soppe suñu mbokk ah soppe waaw waaw soppe ku baax la nit ku baax la nit ku bëgg géej nit ku yiir géej nit ku suturaal géej nit koo xam ne dafa bëgg géej te yàlla kese tax mook dayam bi yàlla nag moo moo mel ni yàlla mm-hmm. yàlla la yàlla la mm-hmm. euh, mbay soppe dañu yàgg xamante bi ñu kee xale lañ doon ànd ba léegi wala ci biir teg man loolu yëpp wóoruma nag wóoruma man daa xam na an daal nee na ma taan maa ngi am na ku may bëgg man ko ku lay bëgg mu daal ne ma Ibrahima mbay soppe man ko ah man ko bala ngaa dugg ci sëy na de